waajur sonn nañ ci carrière bi carrière bi sonn nañ si xale yi semaine ngi nii jànguñ ba mu semaine ngi nii jànguñ parce que romb na semaine sax ñun moom grève grève état bi eh, waxuñ ko sax ñun suñ grève bopp la ñu wax ndax carrière bi day tàkk xale yi jànguñ xale yi ñëpp a feebar suñ doom yi ñëpp yor feebar bakkan ndax carrière bi li ñu fay sànni muy tàkk eh, boo demee hôpital koo dem ñee la sa sa doom dafa yor feebaru poumon ndax lan carrière bi dañu lay ñaan monsieur le ministre monsieur le maire Samba Ndiobène Ka lépp lu loo man nga njëkkee defal ñu ko ci carrière bi ndax tey la sa ñu ñu def suñu première marche ñëw si buntu mairie bi fekkul la fi gaa waaye dañoo bëggoon def déclaration pour nga jos nga dimbale ñu loo man rek première liggéey boo def teg sa tànk boo njëkkee rek njëkkee ci carrière bi ndax sonn nañu dafa nekk dañ nekk école bi ñun ñun école bi rek xale yi tey ñoo ñooy ëllëg ñoo ñoo ñooy doon ay maire ëllëg feebar nañ kenn mënut a xale yi chaque jour boo ñëw sa doom buy ñëw da nga ko jël musuwaar 100 francs ndax xet gu bon ñëpp soj ñëpp soj nañ fee sonn nañ dee nañ taayi nañ dimbale ñu monsieur le maire Samba Ka ci bi sonn nañ sant di leen ziar euh, ñu ngi woon ak Samba Ndiobène ci carrière bi lañ bëgg ñu santal ñu parce que ñun sonn chaque jour dañu ay bidon ndox fay carré bi heure bu tàkkee bu ñu wooyee waa sapeur pompier duñ ñëw duñu nangoo fayal guddi bëccëg heure bu nekk xale yi taalibe yi dañ koy taal élèves yi jàng tuñ suñ doom yëpp dañoo asma heure bu ñuy jàng si demee 8 heures 9 heures ñu taal ko loolu tam dafa métti sama facture courant bi 60 000 lay ne ndax carrière bi chaque jour maa ngi fay maa dëkk carré man maa sës ci carrière bi maa jabar Ousmane